may may ñaan euh, ñaanal yàlla suñu yaay ji suñu maam sax la ñuy wax euh, yaay Gaston Mbengue yàlla yàlla xaare ko àjjana i paraît que elle morte à à l'âge de 107 ans 102 ans hmm, yàlla nañ yàlla taaf ci barkeem hmm, euh, yaay nag moom du màgget naa ni Gaston boo xoolee am na lu ko naqadi am na lu ko naqadi ñu ngi ñay ñaan Gaston suñu maam jooju yàlla yàlla xare ko àjjana woyofal suuf si kawam jéggal ko ay bàkkaaram xam lan mo tax li Gaston def ni du événement xam lu tax jël paie ak a garaaw buur ak a garaaw tàmm jiitu maanaam tàmm def lu mak boko tamé gis nga li wax ni du ay caaxaande bu production tay teggone Gris Bordeaux ak Balla Gaye euma sen ak Bombardier ciow li nan kor ci dëkk bi mais gasson dafa tam événement bu mak c'est un maanaam bu done sàcc c'est un récidiviste ku miin bés yu mag la ku miin mbir la ta vu gis nga stratégie bi mu def il est très intelligent la revanche de Balagay et de Eumeu euh, le et de et de et de Gris Bordeaux parce que ñom ñaar dañu bëri ci goût d'inachevé ñu mu bëree mu neex mu nakadi même bu ñu joxé Balagay victoire ay supporteram ñu won Gris Bordeaux ay supporteram dañ ko meree parce que dañu ko ne Balla Gaye bi ñëw biñ gis a ba nga doon tudd ay poojam ak yooyu da nga ko waroon lem daan kon bu ko indiwaatee maanaam combat boobu njar ndéem la mu retenir Balla Gaye pour seeti euh, Boy Niang ëllëg ak sibir Balla bu amee ndam est-ce que dina xool Boy Niang waaye bu amulee ndam ndam moom ak Boy Niang combat boobu amul kenn ku ko mën a moytu Gaston il est très dangereux léegi nag diggante Eumeu Sène ak Bombardier waa Pikine yëpp dañoo dajaloo woon bi Eumeu Sène ñàkkee couronne bi ci ci Modou Lo dajale toog Eumeu teg ko di ko waas dang ñu yàpp dang ñu lii daw ñu lii léegi ñun nu ñuy def mooy léegi booy bëreeti ñun dañuy cotiser ku nekk dajale feesal stade bi wane ni yow yaay leaderu Pikine léegi Pikine yow yaa bootu sa ginnaaw dootoo jëlati combat dootoo saax saaxayti suñu combat waa pikin ñoo wax loolu ëmb seen taaj ko ma jox la exclusivité boobu ba loolu amee mu am ndam ci kaw Bombardier jëlaat Bombardier dafa bëgg wan waa Pikine ni man ba man ëmb seen daan bi ma daanoon Bombardier tanduwuma ko tanduwuma ko dama leen bëgg am lu ma leen wan lu ko may ma dem retraite déggoo ma de non waxuma lamba leen di bàyyi waay waaw burkeel jox ma nopp bu baax bi lamba leen di bàyyi Bombardier deux ans moo ko dese Bombardier bu daanee Eumeu seen ak bu ko Eumeu seen daanee lan lan lan lay jëriñaat lamb bu rewaatee beneen combat retraité bu ko Eumeu Sène daane mu anticiper retraite am du bàyyi làmb de làmba koy bàyyi ëmb seen nit bu fekkee ni am na ndam roi de arènes fu mu nekk dana ko seetiwaat dàppal li ma fu mu nekk dana ko seetiwaat mais bu fekkee ni yàlla def na amul ndam làmba koy bàyyi du bàyyi lamb kon am na lu mu bëgg woon waa Pikine na lu mu bëgg woon waa de parce que imaginel daanu ci daanu ci Modou Lo avec jël bi ko Modou daan nga avec la manière nga delluwaat damay jëliwaat Bombardier am na lu mu bëgg wan waa Pikine am na lu mu bëgg wan waa Pikine de attention Bombardier it bëgg na sortir par la grande porte parce que humiliation bi ñu ko humilier bi ko euh, Eumeu Sène humilier da koo metti bëgg na sortir par la grande porte kon Gaston li mu def xam na ko de promotion bi bu jógee pandémie bi jóge fi ci kattanu yàlla ñu fekkee ko ak jàmm combat Bombardier ak Eumeu Sène benn combat du ko dàq ci enjeu ci xaalis ci mobilisation ci am na ñoo xam ne dañuy ñëw xooli euh, Eumeu Sène nan lay retraité jee mbaa Bombardier nan lay retraité jee kaay ma wax la ñaar nag eh eh eh déglu ma bu baax booy Niang doful ay mbokkam dofuñu doppooraluñu dama bëgg nga jox ma nopp bu baax ñetti mbër ngi nii ku leen di jël te amoo ay mbokk amoo ay sëriñ bu yeboo nga fabu banqal sa baaraam Modou Lo banqal sa baaraam Balla Gaye banqal sa baaraam Eumeu seen promoteur bu leen fay cent millions dinañ ci teg deux cent millions dugg ci seen i mbokk ndama leen gënal lu ñu am ndam moo leen gënal luñ am ci àdduna révélation laa lay jox Balla Gaye numéro 2 somme bi mu dépensé bi muy daan Yékini kuñ ko wax nga weddi ko ci àdduna ba moo tax mu ne am na ay événement yoo xam ne benn yoon lay am ci àdduna ci xarlu ci àdduna mooy Balla Gaye Yékini benn yoon lay am ci àdduna say mbokk duñ nelaw say am di jàmm duñu nelaw sa poste du ko Double bu nelewé que rek ñu def ko ko eh, Boy a raison sur toute la ligne numéro de 50 millions préparé wu Oh oh yow man yow man lima wax dama numéro 2, boko jëlé ci 50 millions doto ko defati faut 50 50 millions daw ma la buñ ko fayé 90 millions ñom déggoo ak wa Pikine dinañ wuti yenen 100 millions teg ko ci muy 190 millions ñu dugg ci dëkk bi Balla Gaye ne badine pas avec le mystique Aziz Ndiaye rek mu dugg jiné Bissau Conakry ak Montagne ñoom Baye Ndiaye jaar na le booy ñang a raison sur toute la ligne et je te félicite aussi